salla yal na dolli tedd nga allahu yàlla alayhi ci moom bi salaami ànd ak dolli wóolu fi xisbihi ca kurélam ba kama maxaa naka mu fare malaami sama yarange ay xin wóolul bi ànd cina diine ci naka diine indallahi fa yàlla islaamu naa mooy sunu lislaam ji laa diinu dii malaahin du diinay boroomi pox mu day laaj jan diine la dama lay wax ne la l'islam rek l'islam dong la yalla jappé muy diiné lu bokku ci mom ku ko jappé diiné ya ko jappé waye mom néna waye mom néna lu bokku ci l'islam jappé wuko diiné ndax bam né inna ad-dina indallahi al-islamu da del waxat né wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin dafa tudd yonante bi nag mu ñaanal ko yàlla dolli ko teraanga ak jàmm nim ko soreele moom sëriñ bi lépp luy xeetu yaraange tey ëllëg yàlla na ni dolle yonante bi teraanga ak jàmm mu del nag fetliwaat ne na la wóor ne islam mi nga xam ne mooy suñu diine daal yàlla moo nu ko baaxee moom rek la yàlla jàppe diine diine ju bokkut ak moom diine po rek la ñi ci nekk dañuy fo rek te bu ëllëgee daañu xam ne ci po rek lañ nekkoon moo tax mu teg ci idd ngir kullu man képp koo xam ne daana diine woona bilaahu ci ludul moom maanaam ci islaam turida kon dàqeef ko wala yarida te du rot dil jinaani jëm ci àjjana ya abadan mukk ku diine woo diine ji bokkut ak lislaam yàlla da koy dàq xañ ko yërmande lu yàgg-yàgg bu tuubut dem ci l'islam du dem mukk aljana hakum kon nak japp len nizaman aw way nafihan wudi aji jariñ muqaddamatan wudi wuñ mëna jital tambalé ko fi dini mahin ci dini aji far kefur rabbuhu kok boromam qad qaddamahu jital nako sumatuhu turam wa munawwiru sudori. Moy aji leral xol ya ba nga ne aji leral dënn ya da xol da nek ci biir dënn te xol tax ñu wax la dal manashili fa kay ya waxinda duri ak fa kër ya ndegam nak l'islam non la ko yalla fonké kon talifal na leen ci talif wo xamne ne dafa am njariñ lool ku bëgg jang diine bëgg ci man na ci jang ko te diko ko jéem Diri ji nak yalla ko jaarale ci yonenti bi nga xam neena mo far kefer yalla jital ko ñepp wara a ci gannaawum téere bi nak ne da koy tuddé téré bu leeral xol yi fu nit mëna nek rek mo xam nga ci kër mo xam nga ci all mo xam nga ci ab téru mo xam ma nga ca feneen fu waay man di nekk rek téere bi bëgg na mu leeral sa xol ba nga sax ci xam-xam bu am njariñ ak jëf ju yiw ya ayuha nabilu yow aji xellu ja da bàyyil maa la nga xam ne yan fadu dana jeex wa baxite nga sàkku munan ay nibët laa tan fadu yooyu duñu jeex fi abadin ci mukk mulaziman nga e ci taqoo sunnata khayri rusuli sunnas ngën ji yonante ya alih yal dolle ci moom khayru salawatil mursili ngën ji terali aji yónnee jë muy yàlla id ngir fittibaaxiha ci ak toppam moom sunna sa takkoonu ngay nekke saaliman di aji mucc wa fi ixtilaafiha te ci juyoog sunna sa takkoonu ngay nekke zaliman di aji tooñ sa mu ne yow mi yow da nga xam ni wi moom day jeex te luy jeex rek amut solo kon wan ko gannaaw te dëgmal alaxira dëgmal yàlla ngërëmam ndax loolu mooy la dul jeex waaye lu bokk ak loolu rek day jeex soo bëggee am nag la dul jeex da ngay taqoo sax ci sunu bi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam bo taxok sunna rek ya nga ci yoon wa te boko waccu da nga mucc tay ak ëlëk da nga am lepp lo bëgg ëlëk waye nak bo diyonté sunna de mom xamal ne ya togn sa bop te amato dara dara so tubut delu wat ci sunna rek ya xagn sa bop njariñal aduna ak alakhirah ya boole sa bop ci ñu jëm ci kërub safaan ba muy kërub sawaraga fal maahiru aji ñaw ja allabibu jadi aji xellu man mooy ka nga xam ne yanzuru dana xool fi amrin ci ndigal wa nahyin ak tere daaka loolee xayrul xirafi mooy ngën ji métier ya. mu ne ka yeewu te yeewu dëgg dëgg day mooy ki nga xam ne dana jàkk ndigal di ko xañtu di ko ne jàkk tere di ko xàmmiku di ko moytu te yàlla rek tax ku mel noon day ca dëgg-dëgg mooy yew fa kullu man képp koo xam ne nazara xool na fi duniyaa ci àdduna bilaa tafakkurin ci dul xalaat foofu kon moom xadd ko bi la jéngiif na ko bihaa ci àdduna ni àdduna siré yi ku ko xool ak bëti kese rek xalaatoo ba xam ni muy doxé aduna dana la jeng yakal la nga ñak aduna ñàkk alakhirah. mitaluha misalam dal hajuzatun am magat mu jigen la yatun muy aji soufé khafiyatun kudi di aji fi fii atwabin ci ay malan nafisat ñu di aji ganjaru muy malan yu for yahsabuha dana ko jort al ahmaq aji dofe ja xiina lam yara ci waxtu nga xamene jisut siwa libasiha ndare ko dayam la allësi la nga xamne ne xadd xayyara gëlëmal na na ko jortu ghaniyatan muy jongoma mustadrajan bir mu wikku ni jey bi hubbiha ci ak sopam bi khitbatin ci ak labat labat muy wut soxna pour di kook dana alak allësi ka nga xam ne ahabbaha sopp na ko hatta ida mabtazza ba nga xamee ni futtina manam summina ma la nga xam ne xadd labisat solon na ko wajadaha mu fekk ko mufaadatan muy bir biir xadd xobisat joj tëjee foon na ko maanaam daal làqee foon na ko xam xawra xaynin tey aji patt bët data shaybin te borom bi jaaw muntinatan tey aji xesaw moy naqari xet mustahjanatan tey ku ñu jóonlu ku ñu ñaawlu ku ñu bonlu ku ñu seexlu ko xamne bu saaxuhaa aw tiflitam ka bin mi ngi melne mbala mbal marha hadbin aji ketambe barum beut data khalqin tey borom bind ja na bind bi aji faqiran mooy bind bu gàtt ne fëtëx dajaloo nga xam ne zahiruha zahiram yaxuru dana war kulla mudnibin jépp aji bakkaaru xabba mu daldi matt nag xalaa ya day ci yaari loxoom ya daa nadaamatin muy boroomu réccu daa boobu xaal la mbir muy boroomu réccu min kulli ma ci lépp loo xam ne adaa mahoo saxaloon na ko ci la nga xam ne mabaa na mune aduna da misalo ne magat mu jigen mo xamne da magat ba xobi das ñaaw lol nga xamne ne bët ya pat mu bi jaaw weex tàll xesaw lool naqari xet ku ko xam deug deug xeexlu nga xamne bu tiflee tifli de day melne mbala mbal bari mbari ya ketambe bind ba faqiral ne fëtëx waaye nag mu dem sol yëre yu foor yu rafet rafet yoo xam ne ku xamut bu ko seeni day defe ne jongama la joo xam ne moo gën a jongama ci waa àdduna su ko defee nag deg mu xamut mu daal taxaw temm ci fas ko yéene labat jël ko muy soxnaam bam ca sonnee nag mu jaral ko lu ne ndegete lam foogoon safaan bala bam àggee ci moom daal ba summi ko war a jotee moom daal la door a xam ne ci dëgg-dëgg kii màggat la mu demee noonee mu tàmbali rëccu nag di matt ay di wiccax di rëccu rek lim di rëccu rek ak seet nag li mu ci daj ana lu ko jaar ka dofe mooy def noonu de amal labibu ndaal aji xellu ja famata laqaha ha yu tassé mom yaftash mu gëstu ko wa in al adha lorja alqaha mu dal dikoy sanni dal wacc mu ne yewu nak mom du seen rek kuy nuru jongoma mu taxaw tem ci def ci leppam mu jaral ko lu taxamut ba neemu koy non la melam deet faaw jar naa sonne wala jëru ko nga kon ku yewu moom day gisi àdduna beti xol xam ne du dara daal koy wan gannaaw dëgmal nag boromam rek ngir am ngërëmal boromam wa makkaluha misaali nañ ko moom àdduna bi ihtilaami naaimi ci aji nelaw man bahaha ku ko jaay zafira bu tofu bil xanaa imi ci ay manga ne dañu misali aduna gentu kuy nelaw xam nga kuy nelaw man ngay gentu di gis lu rafet rafet lu yeme yéeme bu yewo rek du gisati dara aduna it non la mel lo ci seen day nuru dara te fekk na bo ci agge rek du doon dara lo ci ak neexon ma am ko ba am ko itam day mel na rekk safatul dara ci yow ngay séentuwaat di xoolaat leneen nag ba tax mu ne ku ko jaay jënde ko alaxira daal am nga xéewal goo xam ne amut fu muy yem mooy dal ngay jariñu dal ngay taxe faw adduna ak alaxira aqbalat dëgmal si woon na adduniya adduna ilee jëm ci man xablu ca bu jëkk wa bi'atuha te ma jaay ko wa zalata dañ han yi walisma alkabulu jeng ba wa adbarat te mu dëdduwaat ba te mu wanaat gannaaw baadaho ci gannaaw ba yi walisma walam amil te musuma jeng laha jëm ci moom li kaw ni haa ngiruk nekkam daara zulamin di keruk ay lëndëm wa aqbalat te mu dëgmal siwaat baadaho ci gannaawam li jëm ci man wa inni ta naka man dal aqbaltu dëgmal lillahi jam ci yalla wa abxaate mu desal man ni sama xewal nga xoolaat yari wa ba'dahu hanniya ak wa ba'dahu li melna amna yax yu koy def wa ba'daha su delo nak ci iqbal ak idbar yi ñuy ci waxin wi kon ba'dahu lay doon daa wax ni aduna dama dëgmal si woon defe ne danaa ko geesu na man ma daal di koy jaay rek wuti ngërëmal saa boroom te sànni ko moom fële nee mu wan gannaaw defene ne ko ka kobas waaye man ma xam ne la kërub te xeedi la bu wan ko gannaaw rek dolli sax nama ko wane wan gannaaw dëgmal rek yàlla saa borom mu dellooti dëgmal si waat ma moom àdduna dëgmal si ñaareel defe ne daal ba tey man na maa nax danaa ko geesu waaye man daal musuma am seen soxla su yàlla musuma bëgg musuma wut lu may yàlla yàlla moomee nag am naa ko nu raw naa ko bëgge woon mu sax di ma sottil xéewalam tey ba ëllëg di ma fay fay goo xam ne amut fu muy yem nee nañu njëkk muy dem ca tukkib géej ga am na julli ko xëyit gu mu julli woon goo xam ne mbooloo ma daa bari bari waay boo xam ne bu yëkkatee kàddoom ñepp duñ ko dégg ñi xëccoo itam ku ne ne maa koy lalal sa jaada ba ba ñi bëgg a xeex mu mel ne ku waat ne dana lal sa jaadaam bi foo xam ne kenn du fa nekk ba di ko xëccoo naa maa koy lal nee na yàlla mi dogal dogal mu dem ca tukki bi géej ga àgg ci korite daldi xëy waaj waajum kuy julli ji julli korité dem itam ba ca penc ma néggandi ko it di séentu ba xam dana gis kenn ku mu àndal julli am déet mu xool xool gisul kenn mu daldi kàbbar tàmbalee julli waaye nee na ñaari gone yu jigéen ñoo fa nekkoon yoo xam ne dañoo yéem la muy def defe ne moom daal dafa nitoo ba su kàbbaree mbaa mu def lu bokk ci julli gi ñu rek di wéy ndax xamuñu luy julli miinuñu ko nee na it boobu amutoon lu mu def murum koor te it su ko amoon it du gis ku koy yelloo kum koy jox foofa nga xam ne kon yaari julli ni ñu doy na waar waaye moom nee na li gën a yéeme mooy ci xolam moom xàmmiwu ci julli googee nga xam ne la mbooloo mu bari woon ba bu dee wax ñoom ñëpp duñ ko dégg ñu doon xaccoo it ku ne ne koy lalal sa jaada bi ba nar caa xeex xàmmiwu ko julli gi nga xam ne menn moom dong amul ko wettali te it ñaari jigéen ña fa nekkoon di ay xale xamuñu sax luy julli dafa ne moom daal di tóodiku di ree ca la muy def ci xolam moom nee na xàmmiwut yaari julli yooyu muy lu gën a yéemeeti mu mel ne kon àdduna da koo laata muy dem ca tukki ba daal di koy wan gannaaw nag bi tubaab yi am leen teeg moom ba mu nekk ca tukki ba gannaaw bi mu dellusee it àdduna dellu dëgmalaat ko ak mbooloo mi ba nim génnee àdduna dellu ci boroomu waaye moom nee na nee na woon mësta xëy ngir àdduna mësta gont it ngir àdduna waaye àdduna dafa yi ñu nga xam ne ñoo ko doon dàq ak wut ñëw nag topp ci gannaawam di sàkku mu jox ko ndigal fu mu ko digal rek mu jëm fa loolu muy coobare yàlla ju mu jëflanteeg moom fa kulluma lépp loo xam ne akoonu danaa nekk zantifaaxin di boroomuk jariñoo bi ci moom mina duniyaa ci àdduna la dantifaax yi fa samak jariñu fa innahoo naka loolee yàkkoonu dana nekk zaadan di ab yóbbal lil jinaani jëm ci àjjana ya baax dal bu yooxi ci gannaaw jaay yi ma jaayanteeg yàlla wal jihaad ak jihaad ja damtinaanin may boroom xéewlu daa boobu xaal la mbirum may boroomuk xéewlu mu ne gannaaw bi nga xamee ne jaayante na ak yàlla te deltuuma gannaaw ba yàlla jënd lépp li ma ko doon jaay gërëm ma ma jihad jihad joo xam ne da koy yegal ci jihaad yi yonente ba ak ya gannaaw loolu loo gisati mu mel da daa koy jariñoo ci aduna xamal ne du aduna ab yobul rek la bu yoblo jëm aljana gannaaw bi mu wute yalla ba am yalla. amin woo xam ne moo yàlla rek xam na mu demee la wax ne lépp loo gis mu ci yëngatu lum néew néew ci wàllu àdduna mel ni lum cay jariñoo xamal ne dara du ci àdduna lépp ngërëmul yàlla rek di ab yóbbal bu mu yóbbuloo ba ba muy dem aljanna ji ko yàlla jëmale ahmadu dana sant rabbi sama borom ala khairil wara ci gën ji mindeef kama qaada naka mu wamate moom yàlla bi ci dara jaam lay jëme ci man aswara sariya ahmaduhu dana ko sant halantiha isayri ci egguk samab dox leho jëm ci moom yàlla mahal mahi ànd aji far ji muy yonante bi ba yóbbu xiite dana desal mayri yi sama compte mooy sama xéewal ak samay may ne maa ngi delluy sant yàlla cant goo xam ne du am fu muy yem ci xéewal gi nga xam ne xam naa ne ñépp la ko xéewale waaye maa ci raw te mooy jëmmi yonante bi ak yónni gi mu ko yónni xewal la ci mbindeef yépp waaye nee na moom moo ci raw mu ne ci dara jaam la ma maye alquran kon fu ma toll daay sant yàlla ci dimbali gi ma dimbali yonante bi di mu womat ba àggale ma ci moom te fakkastalu ma dara yàlla nag gi mu xewul rek xewal yoo xam ne du dog ba àjjana loolu mënuma cee sant yàlla cant ga ca yell damay jéem rek kem sama kàttan nabbahtukum yeenaa leen maxan boole seen maanaam yéen ñëpp xalaakat din ci ab coona badaa ba feeñ na lii ñeel ma qabla an araa ci njëkk may gis ridan ngeureum mu abadan bu di buñ dappetal manam buñu saxal amul fumu yam yem fa jaahidoo kon nak na ngeen jihad ak an nufusa bakaniya ya tattabi'u bu len top ahwaaha aha seeni banex ñom bakaniya ya bal li fi nek ittabi'u top len ar ngërëm ngeureum mune nak fi ma dox ak lima daj door am gërëm li ma am tektal la ci ne bala kenn am ngërëmul yàlla dafa sonn njëkk mu ne kon war ngeen yeewu ci fi ma jaar ak li ma daj door am ngërëmul yàlla li nga xam ne am naa ko te duma ko ñàkk ci mukk mukk fa ma dox ba ak si foofu la ci ne ku bëgg ngërëm da ngay nangoo sonn ngir yàlla yalla jaral la lu ne kon de len beure ak seeni bakkan bañ a seeni bakkan ca la len neex tay xet lay may ngeureum ngeen sax ca dunia ya aji sakku ci aduna ihfadan watun wasiyati sama dénkaane bi fa innaha naka moom xaalisatun aji sel la bi niyet yi ci sama yéene firra na nga daw mina dunia ci aduna ida lam takun dem nekkoo malika nafsika di aji moom sabakan bakkan tasir kon nga mujj daa di boroomi daraja toddoxikuka dana la relo al yow ma tey ji wa tubb kii ka te mu lay jooyloo xadan ci ëlëk maalam tabiha li feeg jaayoo ko biya kon jaay ko tulazim kon nga taqoo raxadan yaatu dund yow mi wut àdduna ma laabire la te li ma lay wax jàpp ko bu baax baax te mooy bu fekkee ne moomoo sa bakkan moomoo sa bopp wóoluwoo sa bopp dawala daw aduna te wute wuti yàlla alaxira ndax booy dooru jóg li ci ëpp faaw rek nga war daw aduna dëgmal yàlla kese ba ba ngay am yalla boo amee yalla nag gisatoo lu may yalla kon aduna mbaa dara du la mën a bu nak nag ab wala wàll yi woo xam mom, ko baxé mom day mëna bolé aduna ak alakhira ci do muy dooro juk sax day mëna a yar yépp ndax yalla ko baxé lola waaye nak ko xam tu du ab yonante du wàll yalla baxé nonu su bëggé mané boromam ci day njëkk won gannaaw aduna ak lépp lu dul yàlla dëgmal nag yàlla ba am yàlla ba noppi nag te mu ni aduna moom boo ko dëgmalee itam da ngay sonn rek ndax bu la reeloo tey jii bu ëllëgee mu jooyloo la te sax li mu lay jooyloo mu ëpp li mu lay reeloo waaye nag soo ko gannaaw jaay ko jënde ko alaxira du la mën a jooylooti du la mën a reelooti yow foo tollu sa xol day tàlli te bépp ci sa boroom moo tax kon dund gu yaato yaatu gu neex a neex ngay dunde fii ci àdduna door jàll nag ci dund ga gën a dàq foofa ca alaxira madd moonu xaa la mu làmboo lu ëmb ca gecci wala nga ne gàcce wal fadihatu ak gàcce ak toroxte wala turi te du baiha aji jaayam ja fadihatan genn gàcce adru mom nee na toroxal ay gaayam rek moy mbiram waye nak ka ko won gannaaw boromum lu gis mukk bonuk aduna ka jaay aduna jënde alaxira mooy ka nga xamee ne lépp lu mu am ci aduna da ko wéete yàlla ak ngërëmul yàlla waaye bu ko jëmale ci aduna loolu moom nee ku ko def dal ngay am texe am ak mucc te aduna si li muy bon bon yow doo xam ak bonam ko dëgmal rek jàppe ko dara mooy gis bon gaag toroxal gam koy toroxal boobaa texe li man ñel na koo xam ne azhadahu dëdduloo na ko mawlaahu boroomam ba fiihaa ci àdduna fa innahu naka kookee turaa def na gis xulaahu ay kaweem mu ne nag ku yàlla may nga wan gannaaw àdduna dëgmal yàlla rek ak këramam kooka daal mooma mat a ndax moo am texeeg teeg ëllëg te foo ko fekk ci kaw rek lay jëm du jëm suuf mukk mukk albaabu lii moo di bunt ba al awwalu bi aji jëkk fii xisma yi diini ci ñaari xaaj yi diine day jàll si nag ci bunt bi nga xamee ne moo ci jëkk bunt bu jëkk bi da ci leeral diine ci boppam ci gàttal nim doone ñaari xaaj ñaari xaaj yi mooy defal muy ndigal ak bul def muy tere yaalam xamal bi ànn diina ci naka diine shatraani yaari wàll la mbaa ñaari xaaj la kama nassa naka yaxale bi ci loolu qabliya ci sama jëkk ba'dul hukama ilen ci way xam ñi hikam fa awwalun aji jëkk tarkul manahi modi bayyi tere ya mutlaxan ak luñu man di doon da abayil al manahiya tere ya li baqin ngir aji des atlaqa boyal na ma manam yewatuma yeey na ma wattaani ñaareel bi fi'lu kulli shay'in mooy def lépp dara umira lool digleef na bi ci moom wa man yudimhu ku ko saxal yukk fa kon fegaleef ko al umara lori buur ya ne diine ñaari xaaj la te loolu ñu xam àtte yi xam xam gu am njariñ waxoon nañ ko njëkk ma di ko wax xaaj bu njëkk bi mooy lépp lu ñu tere nga moytu ko biir ak bitti ndax lañu tere moom duñu wax ne bàyyi ca la nga mën a bàyyi dañ wax bàyyi lépp lépp lépp lépp moo tax mu ne bàyyi lépp lu ñu tere te yàlla tax yàlla mi nga xam ne du jeex mukk moo fi des ba faaw te man moo ma yewi yewatuma amatul dara lu may tënk lu may yeew yàlla ya yewi na ma rek yaatal ma amatul lu may gàllankoor xaaj ñaareel bi nag mooy lépp lu ñu digle nga def ko te yàlla tax waaye nag kooku moom am ndal la ñu digle boo ca defee